Ousmane Sonko Ousmane Sonko bis ni ki tey su ma la naree wooteel man su ma naree jël sama xob sànnil la ko yow yàlla naa nekka xar wala bëy man maa ko wax parce que yéen man mënuma concevoir en tant que national nationale gagné coupe ñëpp ñëw Ousmane Sonko nanguwul fa teg tànkam ñoom lépp yéen seen yàpp ngeen seen àdduna lépp politique la politique daa am foo xam ne fu mu toll fu mu comme nu ko mag Sall waxee am na foo xam ne bu ñu fa tolloo dañuy jël politique teg ko nële. yéen ngi dégg ñëw ci population bi bëgg yéen comprendre su jeexee ñi demaat takkaat jaaj yi comme ni mu ko waxee mais mais gis ngeen fa Sonko kenn gisu ko fa suñ ko waxee mu nekk fii di bëgg-bëgg lu Sénégal day sóob man sama xob ma la ko naree sànnil Sonko yow yàlla naa nekk bëy wala xar ngëj yéen ñëpp laa leen waxal nag am leen fula gu ni bu seen élection yi joxe ngeen dem sànni Macky Sall wala ngeen sànni keneen bu kenn woteel Sonko dafa day sóob ni yore bëggul Sénégal nu ma la woteel de